في كون الشيخ التيجاني رضي الله عنه خاتم الأولياء أه، تينك دي سنو نينتيلو درس نوار تامبلي في الشيخ إبراهيم رضي الله عنه دي وخيني وقال في الجزء الثالث من الفتوحات في صحيفة 514 514 ما نصه مولاي محي الدين ابن عربي الحاتمي واخنا تي نيتلو خات تي فتوحات المكيه في باز 514 نه واما ختميه عيسى عليه السلام فله ختام دوره الملك والملك واخر رسول ظهر خمغا تي الدين ديمبي mi ngi doon jàngale ñaari xeetu xatmu yi am ndax waxoon nañu ni alxatmu xatmaan mu wax ñu alxatmul mutlaq ak yi nga maanaam xatmul mutlaq ak xatm bi nga xam ne mooy alxatmul aam sayidna isa alayhi salaatu wassalaam mooy xaatimul wilaya al aama نيغا خميني مولانا شهتيان رضي الله عنه لدوني خاتم الولاية الخاصة ولا صحنغني المطلق وتهمني ختمية عيسى عليه السلام فله ختام دورة الملك موم موي كست دور بوربي بوربو بنغا خمني آخر رسول ظهر موي يونن تبي wa zahara bi suratin aadam mu feeñee ci melow aadam fi nashihi ci sosom haysu lam yakun lahu ab waaye nag amut baay te kooku mooy seydina isa alayhi na ci melow doomu aadama waaye dëgg dëgg moom amut baay lay lam yakun lahu abun bashari amul baay boo xam ne doomu aadama la walam yushbihi al anbiya te ndiroo wutag yonontu أعني ذرية آدم في النش منام لروت دوم آدم أي تسوسو فإنه لم يثبت له في البطن اللبس المعتاد موم ساخوت تبيرو ندايم دير بن قم تي أمب منام جروم نياري وير جاب جروم نينتي وير ديرت فإنه لم ينتقل في أطوار النشأة الطبيعية mu ne moom ba tey étape yi nga xam ne mooy étape ak sosu ak màgg bi nit ñi di am jaar ci maniyu jaar ci nutfa jaar ci alaqa jaar ci mudga ba génn nekk doomu aadama jaar ci ci ci ci ci ci raam jaar ci taxaw jaar ci dox yooyu jaaru fa fi atwaari nashati tabiiya لين خم دال تي جار جارو دوم آدم ناتورال ما بمرور الأزمان تي جامنو ين خم المعتادة تي مين جارو تي بأن كان انتقاله يشبه البعث موم انتقالم دفاي مني لنو دكا آني إحياء الموتى يوم القيامة في الزمان من لما تنمو موي دكال ويدي يوم القيامة تي جامنو fi zamanil qalil ci jamono ju néew ala suuratin ci melo boo xam ne maa jaau alayha fi zamanil kathir dikkeewuñ melo boobu ci jamono bëri fa innahu daaxilun taxta umumi qawlihi kama badaakum taawudun moom nag dafay dugg ci maanaam aaya bi yàlla wax ni kama badaakum ni ma leen sosee taawudun noon ngeen di delloo ci aaya boobu aaya boobu daf koy ëmb fit tanaasuli ci ak sosu wa tanaquli fil atwaar ak toxalu ci ay état bu dund summa inna isa ida nazala ila al ard mu ne topp nag isa bu wàccee ci kaw suuf fi axiri zaman ci mujjug jamono aataahu llahu xatma alwilaya al kubra moom la yàlla du jox xatmu مكستي ولاية الكبرى بيغا خمني من آدم إلى آخر نبي مو تنبالي على آدم بشي يونتو مجو تشريفا لمحمد صلى الله عليه وسلم غيرتر ليكو يونتو بي صلى الله عليه وسلم كتولني يونتي على عيسى سو بوكي سيسم توب لولو ترانجلا حيث لم يختم الله الولاية العامة في كل أمة إلا برسوله ndax yàlla mësta kaste wilaayal aam ci umma bu ne lu duut yonantu la koy def yonantu illaa bi rasulin taabiun lahu sallallahu alayhi wa sallam lu duut yonantu boo xam ne aji topp la ci yonantu bi sallallahu alayhi xiina idin fa lahu xatmu dawril mulki moo tax moom Seydina Isa moo kaste dawruk malik wa xatmul wilaya kaste yi tamit wilaya أعني الولاية العامة من تجيب له موي الولاية العامة فهو من الخواتم في العالم موم بوكنا تي خاتمي مانام نيغا خامن نيو كاستي تي عالم بي وأما ختم الولاية المحمدي بفكينا ختم الولاية المحمد فهو الختم الخاص لولاية أمة محمد الظاهر موي xatmu bi nga xam ne dañ ko jagleel wilaayak ummatu muhammad kon wilaayak umma yu jiitu loolu la ñu tuddee wilaayal amma isa moo ko kaste waaye wilaayak al zahir bi nga xam ne dafa feeñ fa yadxulu fi xukmi xatmiyati isa wa gayrihi bu ko defee nag xatmiyaag yonent yàlla isa day dugg ci biiram ak ñeneen ñu duwul moom ku mel ni Ilias ku khadir ni xadir nga xam Ilias yonantu la khadir waliyu la wax na ñi ñi ngi dund ba tey wa kullu waliyin lillah ak waliyu bu mënta doon fi zahiril umma da nga xam ne umma bii di umma yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam fa isa alayhi salam isa alayhi salam wa in kana khatman donte ka khatmu la fa huwa maxtumun moom doonte ka dafa kaste waaye momi tamit kaste nañ ko manam ñu ko kaste taxta hada al khatmi al muhammadi ci ronu ki nga xamné mo kaste ràng ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muné wa alimtu haditha hada al khatim al muhammadi bi fas mom ibn arabi hatimi moy wax gis nga mu ngi joxon cheikh tidiane radiyallahu anhu muné mbiram khatim al muhammadi bi man ko xamé ci fas min bilaadil maghrib ci dëkku maghrib muy Maroc loolu mu ne sanata arbain wa sittina wa muy atum juróomi téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay ak yonantu bi sallallahu alayhi wa bihi lxaq yàllaa ko xamloo wa aataani alaamatuhu wala usammihi mu ne yàllaa xamal wan ma ay mandargam waaye du ma ko tudd ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اكدايو بيم امتي يونت بي صلى الله عليه وسلم منزله الشعره منزله شعره واحده من جسدي واتشو وايو كراو غو صح تي جيم يونت صلى الله عليه وسلم ولهذا يشعر به اجمالا ولا ولا يعلم به تفصيلا موتاخ دنجكو ييك ان جينيرال واي مونوني خام ليب تي موم إلا من علم إلا من علمه الله في لدود كويا خمان أو من صدقه إن عرفه بنفسه في دعواه تلك ولو كو دجل سكو فكي دمنا بخم كو في واتم بيغا خمني مون كوي ووتو سي بوبام فلذلك عرف ولا عرف بأنه شعرة من الشعور سي لول لا بأنه بن بيب كراو لا سي يورنتو ومثال الشعور مثال بنكو كو بغي مثال نك موي ان ترى بابا مغلقا على بيت جيس غيس بونتو بو خامني دنجكو تجي أبكر او صندوقا مغلقا ولا كيس بيم تج فتا حس فيه بحركة تؤذن أن في ذلك البيت حيوانا جيك ab yëngatu ci kees googu wala ci kër googu lu lay yëgal ni am na xayawaan bu nekk ci biir walakin laa yulam laa yaalam ayu nawin huwa min anwail xayawaan waaye xamoo ban xeetu xayawaan moo nekk ca biir aw yashcur annahu insaan wala nga yëg ni insaan la maanaam doomu aadama la wala yarifu lahu aynan te xamaloo ko ak jëmm fa yufassil fa yafsiluhu min gayrihi ba nga mën ko tàqaleeg keneen ku duhut moom كما تعلم بثقل الصندوق كم نيجي خمي دي سايو كيس بي أنه يحتوي على شيء نكيس بدال أمن لوم أمب أثقله لكو ديسل لا يعلم ما هو عين ذلك الشيء تقمل دق دق مير موملان لا المختزن في ذلك الصندوق نيجا خمنا نيجي كاستي في كيس جوجو فمثل هذا منه مثال لي نك يسمى شعورا لهذا الخفاء موم لا ني شعور ناخ نبو غي نبو باين انتهى من هابي لفظي فهل جيهنا ابن عربي الحاتمي سي بات ييغا خامني موم لا باين وقال في الجزء الثاني من الفتوحات في صحيفه خمسين ونبتي ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه وحنا في فتوحات المكية في نيارلو الخاج بي في فاز جرون فوق ما نصو لو خمن لي موكو يخل ولما كان أحكام محمد صلى الله عليه وسلم عند الله تخالف أحكام سائر الأنبياء والرسل في البعث العام وتحليل الغنائم وطهارة الأرض واتخاذها مسجدا وأوتي جوامع الكلم ونصر بال معنى وهو الرعب وأوتي مفاتيح خزائن الأرض وختمت به النبوة عاد حكم كل نبي بعده حكم ولي من بغا خبيني يلا دوغلنا أحكام محمد أتب يونت بصلى الله عليه وسلم عند الله فيلا تخالف دفعي ووتك أحكام سائر الأنبياء ni yàlla attee ci yeneen yonantu yi ñi ñu solo ak ñu ñu yónni fil baasil aam ci e, maanaam yónni ko ci mboolem mbindeef yi ñu ci des kenn ku nekk dañ laa yónni rek ci gox bi nga nekk waaye moom dañ ko yónni ci mboolem mbindeef yi niki noonu taxlil ganaayim daganal ci noonu itamit tahaaratul ard may ko suuf si laab comme ni ko yonentu waxee wa juilat li al ardu kullaha masjidan wa tahuran wa itixaadiha masjidan suuf si yëpp foo taxaw julli mu wér ñu jox ko jawaamiul kalim mooy wax joo xam ne dafay mat ba duñ gis lu maanaam kenn mënu ci génne dara kenn mënu ci dugal dara yàlla dimbale ko roof ci xolu noona mi ragal nusirtu bir bi masira shahrin loolu la loolu wax yàlla dimbale na ma roof ci xolu samay noon ñu ragale ma ragali ragal gu tolloog doxinu weer wa utiya mafatihu xazainil ard ñu jox ko caabi magasin wu suuf yi wa xutimat bi nubuwa yàlla kaste ci moom nubuwa mu ne loolu nag ba mu amee aada xukm kullu nabiyin baadahu dafay mujj nekk atteb yonentu bu ne ci ginnaawam xukmu waliyin muy atteb waliyu fa anzala fi dunya bi maqaami ixtisaasihi wal wàcce ko ci àdduna ci maqaam ak lixtisaasom mooy jagleem wastaxaqa an yakuna li wilayatihi alxaasa moo tax dafay yelloo wilaaya alxaasa bi nga xamne ci mom la aju am li nga xamne moy mooy xatmun ku ko kaste yuwaatiw ismuhu sallallahu alayhi wa sallam mu mengo turu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam wa yahuzu khalqahu mu pek ay mbindeefam wa ma huwa bil mahdi al ma'ruf al almuntadar mu ne koku nak du mahdiyul ma biñ xam ta diko xaar فإن ذلك من سلالته نح مهدي مومش جابوت يننتبي صلى الله عليه وسلم لا يبوك من سلالته وعترته والختم ليس من سلالته الحسية تختم بي نكوتي جابوتا مبو خمني جابوتا كحسلة ولكنه من سلالة أعراقه وإذا فيبوكوتي جابوتا عرقوم موي غرتم وأخلاقي أجيكم صلى الله عليه وسلم loolu tamit ci futuxaatul makki makkiya ci la ko bàyyi toxale mu ne wa fil yawaqit wal jawahir li sayidi abdulwahab shaarani rahimahullah soo demee ci yawaqit ak jawahir bu sayid abdulwahab shaarani rahimahullah ci page soixante-dix-neuf maa nasu mu ne fa in qulta فمن هو أعظم الورثة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام سفكر أن الله كان موي ندونو لجنة مك نهل ينونتوي عليهم الصلاة والسلام فالجواب كما قال الشيخ من التونتو لي مني مني التونتو لي موي لي سرين بيوخ في الجواب الثالث عشر من الباب الثالث والسبعين ci tontu fukel bi ak ñett ci buntu juróom ñaar fukel ak ñett ci téré bobu di futuhatul makkiya muna inna adama warasat inna adama al warasa al xatmaan ndono yi gëna mag ci yonentu yi moy ñaari khatmu yi wahiduhuma a'dama min al akhar ben khatmu bi mo gëna mag ben bi فواحد يختم به الولاية يختم الله به الولاية على الإطلاق وواحد يقتم الله به الولاية المحمدية داف ام كين كو خامني تي موم لا يالا دي كاستي ولايه المطلق دا خامني ولي يو دوت ام تي كو خامني تاميت تي موم لا يالا دي كاستي ولايه المحمديه فاما ختم الولايه كي كاستي ولايه فهو عيسى فهو عيسى مو عيسى عليه الصلاه والسلام فهو الولي بالنبوه مو ولي بيتي نبوه المطلق في زمن هذه الأمة جمن أمة خير يرون النبي صلى الله عليه وسلم وقد حيل بينه وبين التشريع والرسالة يلا داي دوخ دي جنتم اك تشريع مانام يونال اكي اك اك, أك نبوة فيترك آخر الزمان وارثا وخاتم وخاتما لا ولي بعده بنبوة مطلق ودفع مبايك في منك mu ñëw ci mujjé jamono nek aji donn yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ki kaste wilayatu nga xamné waliyu du ñëw ci ginaawam ci nubuwatul mutlaq manam ci umma bi kama anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam xaatimu nubuwa comme ni nga xamee ni yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la kaste nubuwatu la nubuwata tashriin ba'dahu نبوة يونال الدوت الأم تجناو فيعلم أن عيسى عليه السلام وقد فين خمن عيسى عليه السلام وإن كان بعده ومن ومن أولي العزم دونتك وإن كان بعده دونتك عيسى نوار نتجنا ينونت بس الله صلى الله عليه وسلم ومن أولي العزم مبوك أولي العزم وخواص الرسل بوك تي نون جاك فقد زال حكمه من هذا المقام attek ak yonontaam dañ na ci moom ci maqaam bi mu taxaw bi xukmi zamani alayhi ci jamono bi nga xam maanaam jamono bi muy dund moo ko moo attewoo loolu ci moom ndax jamono bi muy dund yonontu mënatu fee am wali rek moom moo ci mën a am waaw dund bi muy dund ci jamono boo xam ne du jamono moom moo waral loolu fa yursilu wali yursalu ñu yónni yónni ko waliyan muy waliyu ذات النبوة المطلق بو خامني دا فا اندك نبوة المطلق ويلهم شرع محمد ينك والكو شرع بيونتو بي صلى الله عليه وسلم ويفهمه على وجهه مدقكو في انام بيغن كالاولياء المحمديين كم نكو ولي خير محمد صلى الله عليه وسلم مدقي وهو منا وهو سيدنا mu ne ci ñun lay bokk te suñ sang la wa kaana axirul amri nabiyan kama kaana aadam awalul amri nabiyan mu ne wa kaana nekk na axirul amri mujjëg mbir mi nabiyan di ab yonantu comme ni nga xamee ni aadam nekkee na njëlbeenu mbiram di yonantu fa xutimati nubuwa mu kaste nubuwatu bi muhammadin allah alayhi wa sallama manam yàlla kaste nubuwatu ci yonantu bi sallallahu alayhi wasallam wal wilayatu bi isa mu kaste wilayatu ci isa qala qaala sheikh serigne bi waxna ni wa am wa amma xaatimul wilaya al muhammadiyya ibn arab al hatimi moy wax mom lay wax sheikh mom la sa'arani di wax cheikh mu ne wa amma xaatimul wilaya al muhammadiya daal nag xaatimul wilaya al muhammadiyya fa huwa moom benn waaye la min al arabi bu bokk ci arab min akramiha bokk ci ñi gën a tedd ci arab aslan ci cosaan wa badan ak ci sosu wa huwa fi zamanina al yow mawjud mu ne mi ngi ci suñu jamono jii tey te jamono jooju fekk na Cheikh Tidiane feeñagul wa qad ijtamaatu bihi fi sanat xamsin wa tisaina wa xamsi miya mune ne dajeeg naag moom ci atou juromi temer ak jurom ñen fuk ak jurom wa ra'aytu al-alaama allati axfaaha alxaqu taala fihi an uyun ibadi ma gis mandarga yi nga xamne yalla ko nëbbee ci neub ci mom wëlees gëtu jami wa kashafaha li muhunnil mako bi madinati fas ci madina fas hatta ra'aytu xaatama alwilaaya almuhammadiya minhu ba ma gis tampon wu kasteg xaatimul wilaya bi ci moom wa raaytuhu mubtalan bil inkaar ma gis ni dañ koo nattoo linkaar maanaam dañ koy kontur bil inkaari alayhi fii ma yataxaqaqu fi sirrihi ci li nga xam ne dina dëggu ci ak mbóotam min al ulumi rabbaaniya ci xam-xamu yàlla muy maarifatu billah wa ataala fi zalik mu ne mu bi guddal na ci دومين بوبو واخ لو باري انتهى منه تيخنا سي نما باي موني قلت ما واخني وهذا الاجتماع الذي ذكره الشيخ محي الدين اجتماع برزخي كوم نينكو واخي وون ديمب موني داجي بي ابن عربي الحاتم دي نتالي ديغنتم اك شيخ تجان داجيك برزخ لا دو تي عالم بي تي عالم البرزخ لا kon nak fala ishkaala fi lol amul luñ ci sik li man nawara allah basiratahu ñel kep ko xam yàlla leral na sa gis-gis wa alhamahu asrar hadratihi ba pare yenkal ko yenkawal ko mboti hadram bi wallahu waliyu tawfiq yàlla dal moy méngale nit ki chance meuna deg li ta top ko muy lu am solo آه، مني ونقلت من الجواهر يواقد والجواهر بعين ما اتخلت يواقد الجواهر وإن كنت نقلت من الفتوحات نفسها مني ميم سفكي تخلى ناكو كتي فتوحات تي بوبام آه، لما لا يخفى من أن القطب الشعراني تي لمن تنبون القطب الشعراني أيضا بتي سلمه نقول نكو وطداه تجرم نكو وهو هو تمام ويمام رك وقال الشيخ المرتضى في شرحه للقاموس ما نصه من الشيخ مرتضى بمي شرح قاموس وحنني والختم عند أهل الحقيقة ختم دال تنين حقيقة موي من يختم به الولاية المحمدية موي كي نخمنا يا الله مملي كستي الولاية المحمدية وثم ختم آخر بنين ختم نك أمنا بو خمنا يختم الولاية العامة موي كستي الولاية العامة كونك جابلني ولاية الخاصة ولاية العامة